benn yàlla wax na salaamaaleykum mbokk déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw sunu xol sedd na lool ci lu leen mën a dëgtal émission bi tudd yoonu njub dañuy woowee émission bi yoonu njub ndaxte dañu fas yéene jàng te gëstu ci mbind yonent yi ci mbirum yoon wi yàlla tëral ngir nit jub ci kanamam ci wan yoon nga nekk ci yoonu njub wala ci yoonu njubadi kàddug yàlla nee na yéen ñi xiif te mar njub barkel ngeen ndax di ngeen regg xëy na am na ñuy xalaat ne ah kii gën a waane ba nu xamee yoonu njub wi yàgg na te soxlawuñu gëstu ci mbind yonent yu jëkk yi li nu xam doy nanu su fekkee loolu moo di sa xalaat na nga déglu li yonent yàlla suleymaan bind mu ne am na yoon wu jub ci bëti nit waaye ci dee lay jëme ci téréb yàlla bu ñuy woowee sa boor yonent yàlla daawuda bàyyi suleymaan wax na lu bare ci lu jëm ci li nu war xam yoonu njub yàlla tëral mu ne ku jub amul du kenn sax ñépp jeng nañu ba kenn amalatul njëriñ yàlla kenn du def lu baax du kenn sax moo tax daawuda bind ñaan gi ci sabuur ne won ma sa yoon yow borom bi te xamal ma say sart sàmm ma ci sa dëgg di ma tette ci dëgg-dëgg sunu yàlla borom bi tettewul jaare la ko ci kàddoom du nu xam mukk lan mooy yoonam danuy mel ni ak gone gu réer ci biir ndakaaru walla ni am xar mu réer ca àll ba wante kàddug yàlla nee na yàlla bëggul kenn sànku waaye ñépp mucc te xam dëgg gi dara gënul xam bu wóor ne yaa ngi ci yoonu dëgg wi jëm fa yàlla fii ci émission yoonu jub dinanu def ay njàng yu chronologique maanaam ci émission yi dinanu benn bennal nettali yonent yàlla yi li ko dale ca ndorte la ba ca mujj ka kàddug yàlla am na bopp am na genn kon nag fas nanu yéene gëstu ci nettali yi nekk ci mbind mi tàmbalee fa yàlla ci boppam tàmbalee maanaam ca ndorte la dinañ jàng lu am njariñ lool ci mbir yàlla ak yonent yi dinañu gis ni mu amee woon yonent yu bare yu bind mbind mu sell mi wante kenn rekk moo ko sos moo di yàlla mbind yonent yi am na ci ay nettali yu bare wante benn xibaar rekk lañuy doon moo di xibaar bu baax bi wone ni nit mën a jube ci kanamu yàlla kon nag nangeen def seen kem kàttan ngir déglu émission yoonu njub ak xel ak takkute wolof njaay nee na ku yàgg ci teen mbaat fekk la fa te naka noonu itam yàlla ci boppam digge na ci mbind mu sell mi ne képp ku may seet ak sa xol bépp dinga ma gis fii ci yoonu njub dinañu yokk sunu xam-xam ci lépp lu jëm ci yàlla ak kàddoom ndax xam nga nu yàlla mel wala fu seytaane jóge ndax xam nga lu tax yàlla sàkk nit wala ni bàkkaar dugge ci àddina si mu sos ndax mës nga jàng nettali bu doy waar bi ci mbirum yonent yàlla nooyin ak mbëndum ndox ma ndax xam nga bu baax lu yonent yàlla ya daan waare wala lu tax ñuy woowe yonent yàlla ibrahima xaritu yàlla ndax mën nga nettali ci bu leer say doom wala say xarit xibaar bu baax bi téere yonent yi ëmb ndax xam nga ci dëgg-dëgg ni nit mën a jube ci kanamu yàlla aji sell ji ndax wóor na la ne say bàkkaar dañ nañu soo bëggee xam tontub yàlla ci laaj yi ak yeneen laaj yu ni mel na ngay déglu émission yoonu njub ci dëgg-dëgg kàddug yonent yi maanaam kàddug yàlla dafa xóot neex di dund te am doole te it kàddug yàlla du nëbb dara dinañu gis ni doomi aadama yi mel dëgg ndaxte mbind mi nee na amul mbindeef mu mën a nëbbu yàlla waaye lépp ubbeeku ba ne fànn ci bëtu war a àtte ci jot gi ñu dese tey am na dëgg gu am maanaa lool gu nu war a jàpp te mooy lii yàlla wax na yàlla aji kawe ji wax na yàlla wax na ak nit te nu sunu waxee ne yàlla wax na ak nit loolu dafay tekki yàlla dafa bëgg a wax ak yow xabaar bu baax la bu fekkee nga jot benn bataxal bu bawoo ci président wu réew mi ndax dinga ko jàng ndax dinga ci xalaat ndax dinga nga fonk waxi président bi rawatina nag bu fekkee ne yàlla aji kawe ji mooy wax ak yow kon nag naka la yàlla waxe ak nit mbind mi tontu laaj boobu ne li jiitu tey yàlla waxoon na ak maam ya ci wàll yu bare ak ci tëralin yu wuute jaarale ko ca yonent ya yàlla waxoon na ak nit jaarale ko ca yonent ya ci diirub jamono ya weesu yàlla woowoon na ay nit ngir ñu yëgle kàddoom te bind ko yàlla mënoon na bindal boppam walla mu jëfandikoo ay malaaka ñu bindal ko wante defewu ko woon noonu yàlla dafa tànnoon ay nit ñu bindal ko ko nit ñooñu ay yonent lañu tuddoon yonent yàlla yi dañoo xawoon a mel ni ay secrétaire maanaam yàlla soloon na ci seen xel li ñu war a bind ñu daldi ko bindal yàlla moo tax kàddug yàlla ne waxu yonent yi wér na te war ngeen koo fonk waaye jëkkaleen a xam ne amul jenn waxu yonent ci mbind mi ju bale ci xelum boppam ndax te kenn ci yonent yi mësula wax ci coobarek boppam waaye xelu yàlla mu sell mi daana xiir nit ñi ñuy yëgle kàddug yàlla kon nag gis nanu ne yàlla wax na ak nit ñi jaarale ko ca yonent ya mu tànn te yonent yooyu bind nañu ci ay téere li yàlla wax ngir sunuy maam te nun ñiy dund ci jamono ji nu mën a xam lépp li nu yàlla bëgg a xamal mbokk yi na denc xalaat bii yàlla wax ne te bëgg na wax ak yow lépp lu yàlla wax jaare la ko ci ay yonentam am na njëriñ ci ñu ñiy dund tey jii xëy na am na ñuy xalaat ne soxlawuma xam lu yonent yu jëkk ya bindoon seen wax amatul solo ci man yonent bu nekk amoon na sasam yonent bu ñëw def sasam daldi dem beneen yonent ñëw def sasam dem ak nangam ak nangam kon ñun ñiy dund tey soxlaatuñu xam li yonent yu jëkk ya daan waare ndax loolu moo di sa xalaat yow xalaatu yàlla kat dëppoowul ak xalaat boobu li yàlla sunu boroom wax mooy lii ndaxte ci dëgg maa ngi leen koy wax li feek asamaan si ak suuf weyul benn tomb walla benn rëddu araf du wey mukk ci mbind mu sell mi ba keroog yépp di am ku tebbi nag ba gëna tuuti ci ndigal yii te ngay jàngal nit ñi noonu dees na la tudde ki gën tuuti ci nguuru yàlla awek aji kawe ji nit ñax la ndamam di tóor tóor kese ñax day wow tóor tóor ruus waaye kàddu borom bi day sax ba faw mbind mu sell mépp ci gémmiñu yàlla la jóge te am na njariñ ngir jàngal nit ñi yedd leen jubbanti leen te yee leen ci njub ci lu wér lépp li yonent yàlla yi bind am na njariñ ndaxte bind nañu ko ngir niti jamono yépp mën a xam yoonu mucc wi yàlla tëral ndax xam nga li yonent yàlla yi bind yàlla dafa bëgg ñépp xam li ñu bind te gëm ko moom la mbind mi wax bi mu naan waxu yonent yi wér na te war ngeen ko fonk mu ngi mel ni làmp buy leer ci bërëb bu lëndëm waaw léeg-léeg dañuy dégg ñuy fexe bëre ak kàddug yàlla di wax naan kenn mënu ko wóolu dafa fees ak mbir yu ci soppiku ak ay njuumte ak i werante ak nangam ak nangam waaye kuy bëree noonu ak kàddug yàlla gi mu ngi bëree ak yàlla ci boppam wante nen du bëre ak doj kàddug yàlla doj la te nit di nen mbind mu sell mépp a wóor te dëngul fenn kenn mënul randal waxi yàlla yàlla ku màgg la te mooy aar kàddoom moom la borom bi ci boppam wax ci téere bu sell bi ñuy wax linjiil bi mu naan asamaan si ak suuf si dinañu wéy waaye samay wax du wéy mukk lépp lu nekk ci mbind mu sel mi am na njariñ ba tey ci nit ñépp dara gënul waxu yàlla wante kàddug yàlla dafa xaw a mel ni ceebu jën ñépp déggoo ci lii ceebu jën neex na lekk te baax na ci yaram wante bu ma ko lekkul duma ci jële benn njariñ faaw noonu itam faaw ma lekk ci kàddug yàlla gi dundal sama xol su ma bëggee taasu ci barkeem looloo tax yàlla wax ci mbind mi ne nit du dunde mburu rekk waaye itam gépp kàddu gu génne ci gémmiñug yàlla te it yéen ñi xiif te mar njub barkel ngeen ndax dingeen ngeen regg ndax xiif nga kàddug yàlla aw ñam la de ñam wu neex sax du ñam wuy dundal sa yaram wante ñam wuy dundal sa xol kon nag yéen ñi ragal yàlla te fonk kàddoom fexele na topp émission yoonu njub ak takkute ngir ngeen mën a yaatal seen xam-xam ci li yàlla wax bu yàgg jaarale ko ci ay yonentam yàlla wax na te yàlla bëgg na wax ak yow yàlla sopp na la te bëgg na it nga déglu kàddoom ba xam ni nga mën a jube fa kanamam bala nuy tàggoog yéen am na leneen lu nu bëgg a leeral ci sunu émission yi nag dunu sukkandiku ci dara lu dul li nekk ci mbind yonent yàlla yi ñun ñiy waajal émission yi ci sunu bopp xamunu dara lu dul lu nu yàlla xamal jaarale ko ci ay yonentam li yonent yàlla yaxya waxoon ci linjiil mooy dëgg kenn mënula am dara lu ko yàlla joxul kon nag amunu fitu wax leneen lu dul li yàlla wax ci mbind mu sell mi jaarale ko ci ay yonentam nu sukkandiku ci sunu xamxamu bopp wala ci leneen ci kàddug yàlla dong lanuy sukkandiku li nu bëgg mooy woneen li yàlla wax ci kàddoom jaarale ko ci ay yonentam ndax xam nga lu yàlla wax ndax bokk nga ci ñi xiif te mar kàddug yàlla ak njubteem yàlla feeñal na màggaayam ak mbëggeelam ak coobareem ci kàddoom gu sell gi nanga gëstoo ndoog nun fii ci yoonu njub ba xam bu baax lu yàlla wax ndaxte kàddug yàlla nee na lépp lu ñu waxoon ci mbind mi lu jiitu tey dañu ko tëraloon ngir nu sàkku ci xam-xam bu nuy may fit ak muñ ak di feddali sunu yaakaar kon nag nanu xam lii yàlla wax na te yàlla dafa bëgg ñépp déglu te dund mag ak ndaw góor ak jigéen boroom alal ak baadoola yàllaa ngi leen di wax yéen ñépp déglu leen ubbi leen seeni nopp te ñëw ci man déglu leen te seen xol dina dund kon nag mbokk yi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi émission bi di ñëw ci coobare yàlla dina nu dugg ci sunu ñaareelu njàng mi tudd nan la yàlla mel su fekkee ne am na lu ngeen bëgg a laaj ci lu nu jàng tey na ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint Louis yoonu njub BP 370 Saint Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku woote bu rëy bi yàlla jëmale ci yéen ñépp déglu leen ubbi leen seeni nopp te ñëw ci man déglu leen te seen xol dina dund